ñun les adjoints du maire au niveau du Sénégal amuñu benn importance ci Sénégal tey leer na tey ndax ñun on vient de Podor on a fait a kilomètres ñu ngi jógee Podor on a quitté à 6 heures du matin on est arrivé ici à 23 heures ak une panne ñun ñëpp tey fanaan ci ay terrain basket. d'abord, première humiliation. Deuxième humiliation, on vient jusqu'à Dakar. Le président de la République ne vient pas. Le ministre de tutelle se fait représenter. Le maire de Dakar se fait représenter. Et on ne va aucun maire ici. Aucune organisation de maire ne se représente. Et ça, c'est une humiliation. D'abord, les adjoints au maire du Sénégal, nous ne sommes pas adjoints au maire du Sénégal. Si nous fii ministre na fi toog wala premier ministre wala le président de la République dañoo ko weegul ñu buudee dañoo bude tey di ko di ko fekkee di ko fekkee nanguñu assemblée générale bi tey di ko nangu tey di ko nangu suba dañoo weegul tey dañoo weegul tey ñu suba ñun les adjoints du Sénégal adjoint maire yi kenn respecté wuñu kenn jox ñu suñu cër mënul président de la république di di ay mbër di recevoir les bàjjenu gox ñun ñi nga xam te ne ñoo nekk ci collectivité territoriale yi di liggéey li nga xam te ne maire yi mënuñu koo liggéey ñun weegu ñuy jox ñu suñu cër suba ngoon guddeeg bëccëg ñu nekk fi depuis 9 heures ñu ne le président de la république du ñëw le ministre tutelle du ñëw représenté ñun le maire de la ville de euh, Dakar ne moom du ñëw on a aucun maire sauf le maire de Gué qui est à Guédiawaye euh, monsieur euh, Racine Ba monsieur Beydi Ba rek moom lañ fi gis mu nekk maire bu fi nekk à part benn maire ñëwul fan lañ ko teg assemblée générale bi du am ñi ci biir salle bi bu ñu génnulee ñun ñoo on va ñun ñooy dugg si biir génne leen ci biti ndax li du continuer